Euh, euh, euh, le point actuel résumons résumé situation mais Pape Pape affaire parrainage les gens avancent des chiffres fantaisistes Comme nga mooy lan Pape Pape chiffres yi gars sont di jël ils mais Pape yow waaw mu ne waaw les chiffres d'Amadouba sont-ils faux waaw Pape Yo, lu tax nga taamu si Amadou Ba ah non ñëpp a de chiffres. pourquoi yow nga jël Amadou Ba singali ko mais Pape sa titre bii yow ak Aïssatou Diop Fall fu ngeen ko teg <laughs> les chiffres de Amadou Ba sont-ils faux ah Pape demal soleil Pape utal ma soleil Pape ñi ñëpp ay printemps lañ waaye rombal ma ñii waay Pape rombal Pape rombal <laughs> bugaan naa dellu si ma eh